Touba ndaysan munuma ko natable ci len tay fay jori mang lay cher wir tank que mourid tay tey mënoon laaj ci digeunte ak seigne Touba. alhamdullilah laaj nga ma luma neex laaj nga ma lu sedd sama xol sama dëggeeg seigne Touba ndaysan munuma ko natable ci len nax lim defal samay mbokk ñi nga xamne xam nañ ma fekke sama juddu. fekk sama dox ci tub tànk ak ba ma jokkoo ci yoonu murit dëgg la ci laa judd waaye ba ma sëñ bi récupéré dimbali ma ba mu ma récupéré xam nañ li sëriñ bi def ci man waaw ci ak diir gu gàtt moo tax mënu ma la mënu ma cee wax lu bari. donc su ma la doon laaj loolu sëriñ Touba defal. lu ma sëriñ tubaa defal mooy daf ma dimbali sëriñ tubaa daf ma dimbali dimbali sama askan ni dimbalee sama askan nag mooy. Euh, am na ñoo xam ne ñoo ma jiitu juddu waaye mën naa waat ni li may def ci yoon bi defuñu ko loolu nag ndimbal ko Serigne la ndax sëriñ Touba maa ngi dégg ci sëñ xel euh, ko muy wax ni dégg na ci sëriñ Saliou Mbacké mu ne Serigne Touba euh, kum namuta fay du la liggéeyloo donc ñun ci yoon wiñ ne. di liggéeyal Serigne Touba di jël suñu alal ak suñu ñaq di ko def ci yoon wi loolu dañuy jàpp ni sëriñ Touba daf ñoo fas ne fay moo tax mu ñuy liggéeyloo. jërëjëf nuyu naa maa ngi lay fay tey noonu laaj sa diggante ak Serigne ah, nga ba ndax lu rëy nga ba laaj sama diggante ak Serigne daal su ma koy résumé damay jàpp ne xanaa sama jëmm ji bi nu koy bind Serigne Touba rek a tax noonu daal laa ko mën a résumé ndax daal. soo borom daal ci tawféexam ya moo ma dimbalee boole ma ak sëñ Tuubaa loolu tawféex laa ko tuddee li ci des kay mooy maay ñaan sa borom ci góor góorgóorlu ba na sëñ Tuubaa bëgg ku ànd ak moom mel na yàlla dimbalee ba ma mën naa mel. tey su ma noonu laaj sëñ Babacar Mbaye lu la sëñ Tuubaa defal. sëñ Tuubaa lépp la ma defal lépp la ma defal lépp la ma defal su ma koy lim du ma fi jóge lépp la ma defal lépp la ma defal lépp loo xamante bi lu baax la mbaa nu koy sàkk muy lu baax. muy loo xam dana la àdduna jariñ àllaaxira sëñ Tuubaa defal na ma ko jërëjëf jërëjëf jërëjëf ah. su ma la doon laajte yaay booy sa diggante ak sëñ Tuubaa loolu la boole ak dul yàlla yontu ko sàkk sàkk ma sàkk ko mu jam lu baax xam lu baax yàlla sédd ko lu baax ak rafet mu sotti ko ñun ci suñu xew ak Cheikh Ibrahima Fall yal ko yàlla defal jàmm taaj ñu ci barkeem te yaay bu ma la laaj cee lu la sëñ Tuubaa defal jàmm xeewal jàmm xeewal la fi def jàmm xewal la fi ndax ñëpp jot nañ ci ñu ngi ci jàmm ñu ngi ci jàmm xewal rek la ñuy ñaan yàlla damaa gis sëñ Fallou gis sëñ Basiru Mbakke ak sëñ Saliou Mbakke ci ca xale ca Touba barke sëñ laahi sëñ Fallou ca tangu Senghor billahi muy ñëw ca tribune ya boobu ay chaise weñ la ay buum yi ñuy takk sëñ Fallou ñëw police bi di ma dàq ma ñëw rek mu ne ko nii taxaw ma ray ko mu daal di dem wàlliwu la duma ko waxal lu amul dëgg la yaa ak sëñ Basiru Mbàkke sëñ Saaliw sëñ Cheikh Mbàkke Gaynde Fatma sëñ Laxaat Mbàkke jërëjëf yaay waaw sama waay bopp ji maa ngi lay siyaare suma noon noonu laajte sa diggante ak sëñ Touba sama diggante ak sëñ Touba day sori ne ma sama diggante ak Sëriñ Saaliw sa diggante ak borom njàpp ndala a ka corno xoy gi jumaa ji Sëriñ Saaliw moo ko rëdd kenn rëdd ko jumaa ji jumaay Serigne Saliou waaw Serigne Saliou nag mooy Serigne Touba moo waral màggal gi su xasee ba teru ñun ñëpp dañuy bokk laxasaayu takku ngir liggéeyal Serigne Saliou. tey su ma doon laajtee benn baat lu la Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacké Serigne Saliou su ma nekk di def su ma nekkee di wax ci waxu Serigne Saliou duñ fi jug ndax Serigne Saliou moo moom sama groupe moo moom sama deret moo moom sama lépp Serigne Saliou mënu ma koo fay Serigne Saliou. borom jàpp ndal njurul xabbaan ndoka ka coroon xay gi kenn du Serigne Saliou ku fi musa a jawon mo moo la yónni Serigne Saliou. ma ngi lay fay. su ma la ci sa sa digganteeg Serigne Touba. sama digganteeg Serigne Touba geej dal la geej kenn xamul fu mu yem man xamul ma Serigne Touba defal dama ñaanal juma ji biñ koy fondement su agge ma liggéeyal Serigne Touba li lama jox mako ci ciy aji mom ju ne may ni ko pomp ko gaay yi. tey su ma noonu lu la Serigne Touba defal. Serigne Touba li defal. xanaa toog sama digg kontóoru xol bi chaque jour moo ci nekk soxlaatuma lenn lenn lenn lu sëriñ Touba saa yu ma xëyee sëñ Touba laay gis bu may nelaw moom laay gis bu may tëddee moom laay gis bu may dox moom laay gis dem naa ba sëñ Touba laay dund damay toog sax muy dox lu ma xalaat mu ñëw damay romb nii sax mu may yërëm fekk maa ngi ko yërëm man barke Cheikhul Khadim liggéey sax ba ma ne def daanaka defatuma ko xidma bi laa nekk ci sëñ sama lépp di dox jërëjëf yàlla